dal leen ak jàmm ci xibaar yi ci Sunugal 24 léegi léegi li gën a fës. sunugal bokk na ci li gën fës euh, ci xibaar yi Sénégal amaat na fukki cas ak euh, benn ci ñu amee coronavirus fukk ak euh, ñett nit daal di wér ñibbi seenub kër fukk ak benn yi sax fii ci Ndakaaru lañu ñu di nekk wax ba tey ci mbirub corona googe daldi di nay tax rek ñu bàyyi ki nga xam ne moom moo fi nekkoon président Tchad di Hissène Habré ci diiru juróom benn fukki fan juróom benn fukki fan euh, mu daal di nekk këram waaye nag ay garde pénitentiaire euh, ñoom ñoo koy daal di xool foofee euh, ca Kër Massar ab ay cas communautaire daal nay indi njàkkare ci bopp askan wi ñoom ñëpp fi mu toll nii jaaxle lañu ñu di def ci cas yooyu ca Yoff ay nit nekk ci ay gaal ñoom daal ñoom ñoo bëggoon a teer ca tefes ga tax na rek. ñii di gendarmerie daal di leen euh, teg loxo waaye nag yóbbu nañ leen euh, isolement euh, wax ci lu ñeel couvre-feu bi ca Touba foofee sax lañ koy jeexale ak soxna si nga xam ne nag dafa tolloon diggante waaye mujjee na am doom ci mbedd mi doom ja nag juddewaalewul bakkan moom moomule xaw tuut rek bakkanam rot ndax ñàkkum woto mbokk yi bu ngeen taaxirloo tuuti yaatale faram-fàcce gi l'information à sa juste valeur. si si salaamaaleykum dal leen ak jàmm ci yaatal ak faram-fàcce xibaar yi nañ leen ko junjee woon ca bopp ba Sénégal amaat na fukki ak benn yu yees fukk ak ñetti nit daldi di wér ñibbi seen kër lu ni mel nag moom moo bàyyeekoo ca communiqué bu bàyyeekoo nag ci ministère bu ñu dénk wàllub wér-gu-yaram bi sunu sukkandikoo nag ci boobu lépp communiqué fukki nit ak benn. Euh, ñoom daal la ñu testé positif euh, ci Covid 19. ci 110 euh, test yi nga xam ne amal nañ ko ca institut Pasteur kon nag Sénégal jamono ji am na 237 cas bokk na ci ñoom nag cent 105 cas yi nga xam ne nag daal di nañuy tane ba ñibbi seen kër ñaari nit daal di ñàkk seen bakkan kenn ñu daal di koy euh, évacuer kon nag euh, jamono ji may àddu ngeen teewlu téeméer ak euh, ñaar fukk ak juróom-ñeenti cas moom la ñu daal di am sous traitement te jamono ji sax seen état daal di nay stable kii di Abdoulaye Diouf Sarr moom nag mu ngay xamle ni cas communautaire yi tàmbale na andi njàkkare ba tax na rek muy sàkku ci ñi nga xam ne ñoom ñooy gouverneur yi ku ci nekk rek nga daal di jël matuwaay yi war ca gox ya nga yor ngir ñu daal di muy tëndiku cas communautaire yi nga xam ne jamono ji euh, mu ngi gën di bari bés bu yàlla sàkk ndax euh, jamono ji euh, chaque jour rek dina am ay cas communautaire kon nag matuwaay yi war gouverneur yi nañ ko jël ca seeni gox tere lépp li nga xam ne mën na koo andi ba ñu mën cee fàggu ñu wax euh, ci fukki kaa ak euh, benn yi nga xam ne am nañ ko euh, niki tey jii suñu sukkandikoo nag ci ay xibaar yi nga xam ne jot nañ ko cas yooyu nag ñu testé positif mu nekk fukki nit ak benn lépp ci région bu Ndakaaru bi la ñu nekk ba tax na nag détecté nañ leen ca centre bu district ouest ak sud ak euh, centre bi ñoom ñooñee nag euh, di fukki nit ak euh, benn nekk nag ay cas yi nga xam ne daal dinañ koy am niki tey kon nag région bu Dakar moom moo ëmb fukki nit ak benn yooyu nga xam ne dañoo amee coronavirus ñu daal di leen diagnostiqué fësal ko niki tey ji wax ci lu ñeel bàyyi ki fi nekkoon président Tchad di Hissène abre moom nag daal dinay jóge ci kaso ga mu nekkoon ñu yóbbu ko këram ci diiru nag euh, juróom benn fukki fan euh, maanaam euh, ñaari weer moom Hissène Habré wàcc nañ ko mu ñibbi këram sunu sukkandikoo ci ab communiqué bi nga xam ni daal nañ koy jot waaye nag lu ni mel firndewul ne dañ koo wàcc rek dootul delluwaat kaso ndax ndax ci résidence euh, surveillée lay nekk foofe nag euh, ca këram nga mu nekk mel na ni rek euh, mu ngi ca kaso gi ndax yóbbul nañ ko ay garde yi nga xam ne dañ koy saytu di ko xool di ko xool saasu ne ñi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk victime mu Tchad yi daal dinañuy naqarlu lu ni mel ndax jamono ji nag Euh, fa Hissène Habré nekk kaso ga mu nekk moom doo nga fa nekk kon nag amul benn risque ngir euh, contamination Covid 19 ci fàttali rek ne moom Hissène abre euh, dañ ko wàcc mu dem këram nekk résident surveillée lu ni mel gannaaw ba kuréelu mbootaayu xeet yi fësalee seen njot Euh, ci wàllaate bi ci Covid 19 ci prison yi ba tax nag ñu sàkk woon rek ñu daal di wàññi nit ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaso yi lii moo tax euh, Hissène Habré ñu daal di koy yóbbu résidence euh, surveillée ngir muccal ko ci contamination yi ci biir kaso yi. ca Kër Massar cas communautaire yi indi na njàkkare ci kanamu askan wi lu ni mel nag tax na ba ña fay yeewoo nelawatuñu ba yandoor ndax jamono ji. cas communautaire yi mu ngi tàmbalee bari te foofee ca Kër Massar euh, fa la gën a ëppee suñu sukkandikoo nag euh, ci xibaar yu ñu jot Kër Massar daal cas communautaire yi foofee la daal di ëppee ndax euh, daal di nañ fay nemmeeku. juróomi nit yi nga xam ne nag dañoo amee coronavirus mu nekk ay cas communautaire yi nga xam ne daal di nañ koy testé positif lu nu mel nag moom moo waral ñëf a dëkk ànd ak euh, njàkkare nelawatuñu ba yandoor euh, tax na nag euh, préfet bu département bu pikin daal di jël ay matuwaay ngir mën a wàññi boobu lépp law virus bi ci cas communautaire yi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku ca Kër Massar. daldi tere bépp njënd ak eh, njaay ci rond Kër Massar waaye tamit eh, oto dootu fa gaareeti ci garage yi. rawatina nag eh, nit ñu bari nañ daan gis ñu daan taxaw foofee ca Kër Massar nga xam ne lépp risque la woon lépp daal di nañuy jël dogal. ngir daal di koy tere bépp rassemblement foofee ca station Kër Massar wala ca rond-point ga ca Yoff ay euh, gaal rek euh, bëggoon a terse foofu ca tefes ga moo tax nag asan askan wa daal di jóg euh, fippu euh, ne loolee du fi amee ba moo waral rek euh, gendarmerie daal di mujjee ñëw intervenir jël ñooñee nga xam ne ñoom ñoo teer ca gaal ga yóbbu leen isolement lu ni nag moom moo xew foofee ca Yoff ca tefes ga ndax askan wi jamono ji nag kenn umpalewul gaal yi nga xam ne mu ngi teer ci tefes yi nekk nag ay nit yi nga xam ne dañoo njott ne dañoo jóge ci ay euh, réew yi nga xam ne euh, coronavirus euh, daf leen laal ñu daw si rek ñëw Sénégal ak jaare ko nag ci yoonu ndox mi doon bëgg a teer foofee ca Yoof gendarmerie nag moom moo daal di mujjee ñëw intervenir daal di leen jël ñoom ñooñee nga xam ne ñoo nekkoon ci gaal gi yóbbu nañ leen quarantaine Euh, ngir euh, xool rek euh, ndax am nañu doomu jàngoro ji waaw walla déet ab bus Dakar dem dikk sax moom moo leen daal di jël yóbbu leen bërëb yi nga xam ne foofee la ñuy yóbbu ay nit yi nga xam ne dañ leen quarantaine ñu jeexale ko ak couvre-feu bi fële ca Touba benn soxna si nga xam ne nag dafa tolloon diggante moom daal moo mujjee mucc ci mbedd mi faf daal di ñàkk doomam mu doon lu tiis moom sax euh, xaw tuut rek euh, mu daal di ñàkk euh, bakkanam lu rek moom moo xew ca quartier Pencum Mbay wàdd foofe ca Touba lu ni ñu bari ci askan wi nag ñaawlu nañ ko mu ngi xew ci guddi ñi juróomi fan jàpp juróom-benn fan ci weeru avril bi ñu nekk ndax moom soxna soosee sax gannaaw bi mu wannee lor rek tollu diggante Euh, ñu doon wut euh, woto bi nga xam ne moom lañ ko waroon a euh, yóbbee foofee hôpital ngir mu mun a accoucher ci anam yu war laata rek ñuy wër oto wër nañu ba sonn ca la mujjee nag daal di accoucher ca buntu këram ba une heure du matin toftale fanweeri simili ca la daal di. yi te lañ ko daal di mujjee jël si rek euh, blouse blanche yi sax euh, ñoom ñoo ko mujjee jël si ngir daal di koy euh, sauver waaye nag tout tànk bi nga xam ne moom la am kenn mujj ko dafa mujjee daal di ñàkk bakkanam mu doon ab tiis bi nga xam ne ñu bari ñu ngi koy naqarlu mbokk yi mu nekkoon li ñu leen indiloon ci ay xibaar dig daje ci sunu yeneen jotaay xibaar jaa ngeen